الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون إن التضامن والتعاون على الخير مما أمر الله به المؤمنين ومن الخصائص التي ينبغي أن يتميزوا بها يقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ويقول ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى وقد وعد الله من يعين المحتاج بالأجر العظيم في الدنيا والآخرة يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه بل تكون إعانة المحتاج ولو كان حيوانا سببا في دخول الجنة كما علمناه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قصة من سقى كلبا فغفر الله له بسبب ذلك دونك سانت يالا دي جولي صلى الله عليه واله وسلم دي نان يالا مودول كو خيو ومكم يبوتم ak sahabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam baat nay tukki mbokk yi lii di jàppalante ak dimbalante ci lu baax day lu yàlla digal jullit ñi doon itam luy ràññale jullit ñi yàlla moo wax ne day leen dimbalante ci lu baax tey bañ a dimbalante ci ab safaan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne jullit ak moroom ja dañuy mel ne rekk ab tabax ab tabax ni ñuy jàppalante ni tabax bi brique yi ca nekk mool ya ni ñuy jàppalante lu ci dañuy jàpp ca moroom ja noonu la murit ak noonu la jullit ak moroom ja itam di mel mu waxit ne jullit ñi dañuy mel na jenn jëmm ñi ni ni ñuy yërëmante ak ni ñuy ñeewante seen diggante dañu mel na jenn jëmm jenn jëmm cër bu ci am lu koy metti rek cër yëpp ay àndandoo yanu mettit woowee kon mettit woo kon cër yëpp ñoo koy bokk jullit ak morom cër noonu lañu ñu war a mel te dimbale yàlla da ca digee pay gu mag a mag dimbale ku aaju woon dimbal fay go xamne ne da koy fay ci adina diko fay tam ci alakhirah yonente bi sallallahu alaihi wa sallam wax na ne kep ko dindil ak jaxle ab julit yàlla dana ko dindil ak jaxle ci jaxle yi alakhirah kep ko xamne tam dafa jàppandalal ab julit yombalal ko mbiram yàlla dana ko yombalal dana yombal mbiram mom ci adina ak alakhirah ku suturaal ab jullit yàlla dana ko suturaal àddina ak àllaaxira li feeg nit kaa ngi dimbale mbokkam mu aajowoo ndimbal yàlla di ko dimbale moom itam yëmut foofu sax waaye dimbale ku aajowoo ndimbal donte sax day mala mala sax bu aajowoo ndimbal dimbali ko rek mën naa waral nit ki bi àjjana yonente bi xamal nañu loolu xamal nañu koo xam ne ab xaj la fekk mu mar mu fexe ba jox ko mu naan te loolu la ko yàlla yërëme ba jéggal ko ba tàbbal ko ci àjjana jàppalante gi nag ak dimbalante gi ni nu ko waxee lu yàlla digal jullit ñi la te itam doon loo xam ne day ràññale jullit ñi tax ñu war koo def yitte te buñ ko defee itam sunu àddina it day nekk sunu njariñ ci sunu àddina day nekk sunu njariñ sunu àddina balaa payug àllaaxira gi di ñëw ñàkk gee defit dañuy jural rekk ak néew doole ci àddina te mi ngi tàmbalee am ci jullit ñi ñàkk a dimbalante na mu ware moo jur néew doole gi nga xam ne jullit ñi néew lañ ko doole ci àddina si ba seen noon yi duñ leen la yoon kon lii nu yàlla digal te muy suñ njariñul àddina di suñu njariñul àlaaxira war nañu cee góorgóorlu war cee sax te xam ne suñ njariñ rek lay doon donc ñaan yàlla kon mu jàpp leenu dimbalenu ba nu mën a dimbalante ci suñu biir ba njariñ li ci nekk ci àddina ak àllaaxira lépp ñu mën caa jot di ko ñaan mu defar ñu àddina ak àllaaxira mu nu ci sawara sàmmal sunu ngëm ubbil nu bunt yiw yëpp teg nu ci yoonu jub may nu fanu gudd ak wér ak mujj rafet الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أيها الإخوة المؤمنون إن الله قد وعد, قد وعد من يعين المحتاج بالأجر العظيم في الدنيا والآخرة بل إن من يعين حيوانا محتاجا يمكن أن يكون ذلك سببا لدخوله الجنة كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم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 واسلك بنا نهج رشد واكفنا زللا واطرد لنا الجن والشيطان يا الله وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله وارد لنا كل ذي صعب وذي حرن ويسرا كل ذي تعسير يا الله طويل لنا عمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله والطف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا